jërë ngeen jëf mbokk internet yi dalati leen ak jàmm rek ba tey say xibaar la sa gën a fas mu doon conseil de ministre bi nga xamante ne seen rek moom lañ doon amal naka si démb njil la di président Bassirou Diomaye Diakhar fay neex wax rek ay e, naataangoom ñu ngi toogal wax leen rek ana 100 jours yi ginnaaw ba nu toogee si bopp réew ba léegi 100 jours yi ana lan lañ si def moo di ah, bilan. moom kookee di njiitum réew mi sax yëkkati bay kàddu wax na rek lu jëm si wàllum carti ndey réew mi rek am na yoo xamante ne si ne das ko say coppar ñi moom nag mu jox ko nga xam ne moom moo di premier ministre mu xool naka la ñuy def rek ba coppar ñi nga xamante ne si ne moo di carti ndey réew mi si à lenn kookee di premier ministre ba di Ousmane Sonko moom nag ba mu yëkkatee kàddu mi xam la na rek bépp contrat bun fi euh, signé woon si nguuru ko Macky Sall depuis 2012 rek ba ni mu wàccee yooyu la contrat rek euh, dam bokk ci secteur stratégique loolu lépp rek danañ ko teg ab comité bu xamante ne si na euh, danañ ko euh, càmbar daat koy xool rek ba xam ana lan rek moo si nekk li nga xam ne moom moo di njariñu Sénégal moom kookee di ministre ba premier ministre ba di Ousmane Sonko daati xamle kàddu yi mel noonu moom nag mu daa say toftal leneen di wax na rek moom ñi nga xamante ne si moo di ay ministre am mu leen wax na rek ñu dem defi li nga xam ne moo di déclaration patrimoine Ousmane bi nga xamante ne si ne seen njiit la di président Bassirou Diomaye Diakhar Faye daan naka eh, def mu leen di soññi rek ñoom ñitin ñu daat koy def ndax ñu xam kenn ku ne rek la nga am ndax na nag jamono ji kenn ku ne rek am na sab secteur bu eh, jiite te bala ngaa def looleet war nga mëna def déclaration eh, li nga xamantene seen modi patrimoine ana la nak lan nga am lolé ba rek nit ñi daat kay xam ndaxte nak li nga xamne lolé nga jité dafa nek mbirum état te ñëpp rek na ko daati bokk yow it bala ngaa ñëw war ngaa mën a wax li nga xamante ne si loolu nga am kooku de Ousmane Sonko daal leen say ah, soññi bu baax a baax mu doon nekkoon conseil ministre bu xamante ne si ne am na solo loolu moom kooku de Ousmane Sonko ginnaaw ba mu rafetloo ah, président ah,